Basuma Basuma Mare toujours comme d'hab des fois mon portable se plante c'est normal parce que c'est surchargé pour être bref et très rapide xale yëpp progression bi mu ngi dem de gaa yaa ngi fanaani place de l'indépendance bu ñu bañoon ñu fanaani ñun ñu ngi ubbi yoon bi ku mën départ léegi na nga départ dem fanaan yi deuxième vague bi à partir de fajar gi na ñëpp départ dem assemblée nationale lundi cinq lii du gagné révolution juróomi baaraam mooy dóor mu tombeek lundi cinq ñuy wut cinquième président ataaya moo neex alors ñuy wut cinquième président suñu ñaari cinq yëpp ñu ngi ci kaso bi ñaari cinq yëpp ñu ngi ci kaso bi ñaari cinq yi am na koo xam ne jekku nañ ko mais loolu regarde rek on s'en fout seen juróomi baaraamu de joor mu ngi ci kaso bi seen juróomi baaraam càmmoñ mu ngi ci kaso bi neex naqari ñoom ñooy cinq neex naqari ñoom ñooy cinq léegi lan moo leen bëgg a xañ cinq ba Sénégal 2012 kan moo ñu taxoon di xeex Karim wàdd ce même Karim wàdd war ñoo xeexloowaat 2024 est-ce que c'est normal gaay gis nga non foog ñu xalaatante xex bi li ko waral Karim wad la 2012 Ablaye wad lan mo taxoon ñun ñep di xex ak mom domam Karim wad sa même Karim wad la fi Ablaye wad bëggon tek noonu ñu tuur suñu deretu dom yep Mamadou Diop ci la dé tay sa même Karim wad la tax ñu bloquer ay élection reporter ay élection mais Karim wad moy kan ak Ablaye wad lan la def ay frère am Si je doomam Karim wad pour mu diriger Sénégal que mu fay ay frères les frères du dugg ci vie privée nay mais ça ne concerne pas la vie privée de quelqu'un mais ça regarde la nation sénégalaise Ablaye Wade mo fi tok def foot technique ne dotul franc-maçon Domam Karim Wade moo xam Macky Sall c'est des frères dans la grande loge kon moom Domam, doomam Ablaye Domam, doomam Macky Sall triangle boobu tey ñoo ñu bëgg rendi à travers nan des ignares ñañ ñooy ignares yi député yi te xam ngeen lan moo tax député yi nekk ay ignares ay bête ay dof liste nationale boo xam ne président mooy toog fële décidé ko bind ku ko neex dugal ay jaga dugal ay doome xaram ay rambaaj ay finis lu nekk mu dugal leen ci assemblée ba député yu bëri xamadi moo tax xamuñu ban loi lañ leen présenté ak yéen risque la mun jël attendez xamadi mooy koo xam ne xamoo koo xam ne li nga nekk nii yëgoo ko yow xamoo li nga ne xam nga yow loo xam Macky Sall moom a fi teg lu mu wax laay def point final parce que xamoo le 23 juin lii xewoon na fi génération boobu nag ah gs 5 boobu dañ ko géré woon génération boobu mooy génération fii la daf yi

Mais on avait la presse. Or, vous, vous n'avez pas la presse. Mais vous avez la réalité en face de vous. Jusqu'à faire des révélations. Or, la presse ne vous fait jamais de révélations. La presse vous donne des informations. Quel genre, quel genre d'informations Des informations filtrées. Les plus sur Internet, lu mu donne, donne, donne, donne, donne, deug mat 20%. Ken amour fait joxe ci Internet 20%. Scène de télé, je l'ai défait. que kuy jot subvention, am licence. te combat bi ne neen dañuy tëj Walf yéen ñëpp di tiit tëj ñàkk tëj ñun loolu yëpp du objectif bi boo leen xëyoon ñu ne leen évacuer leen Ousmane Sonko on s'en fout évacuer nañ Bassirou Diomaye Faye on s'en fout xam ngeen objectif bi lan la rey nañu Macky Sall point man falaa nekk ci combat bi depuis départ falaa toll ku ci d'accordul ak man duma ko duy ak yow ay na Macky sàll organiser élection gëmuma ko te du tey laa koy gëm man gunge Macky Sall nii di jéem a kolokol di wax wax vingt cinq février ay amendement amendement yooyee amendement yooyee mo ñu andil tay lu bëri te ba pare tay si bëccëg la jeunesse li ngeen ma wax dégg naa ko léegi foog affaire yi leer yeen bo leen génnatee di manifester di dawal ba mu mokk rumbax ba presse bi commencé jël ba ay 5 h 6 h politicien bu fa ñëw di son costume ak cravate né day discours tëggale nday mo journaliste yi kay jox micro waaw xaar bu 17 h ñëw wax waxlu sol sa costume blazer set wàcc ci 4 4 climatisé xalé yi xex bu seen tuni tang yow nga taxaw di wax waxlu politicien bu fa ñëw andi wo fa ñit say garde corps nga fa andi ñu japp ni suba kenn du len japp

ñi doon saaga sëriñ si yëpp tëb dal tëb dal tey mu ngi nii prip fan la Macky Sall dem seeti waat sëriñ si waaw wala déet si bëccëg ne kilifa yaa ngi waxtaan façon waxtaan bu nekk dem nañ Touba ministre de l'intérieur si boppam moo dem ak forces armées dem nañ fu nekk sëriñ si bu leen neexee noppi ndax am na loo xam ne askan moo koy jëlal boppam kenn du ko wutal am na loo xam ne askan du askan du wut interlocuteur <coughs> bu ko koy jooyal askan moo koy jooyal boppam fa lañ toll ñu ñoo ne woon ñoo ne woon ñoo ne woon Macky Sall bu organisé wul élection def fi jóge mais du gouverner du Sénégal xam nga ba bii heure yaa ngi ni xeex kenn mënul si yéen dara ndax depuis démb bi ñu décrété élection <coughs> Macky sàll jiiteetul depuis démb bi ñu décrété élection Macky Sall jiiteetul c'est gouverne waaye la cinq lan mooy danger le cinq bi suba lu tax yéen ñëpp a war génn loi bi warul jàll bu loi bi jàllul avant midi une ngeen dugg pale taxaw ak seeni carte électeur ñu déposé Macky Sall que ci leneen képp ku fi calculer le 25 février c'est parce que tes intérêts sont menacés képp ku fi calculer nañ dem élection si diw e président 8e huitième parce que tes intérêts sont menacés nekkatuñu ci ay affaire élection ak report élection pour di xaar Macky nous ne sommes plus dans ce débat man mamaay booy di ma wax ay waxi élection laa mënatul gëm yéen laa jeunesse eh yéen ñi yeew buñ tegee combat bi ci élection naxa saxa nangan leen daana leen combat bi nekkatul ci ay élection Macky Sall reporté na élection yi point suba nag boo nelawee ba jàll xam nga luy danger loi yi jàll xam nga ne Macky Sall jiite tout réew wante bu loi yi jàllee lan moo tax mu daw dellu assemblée nationale yóbbu fa waxu nationalité sër xalaale beneen loi pour mën a jiitewaat réew mi la mais leer pour mën a jiitewaat réew mi moo tax Macky Sall dem assemblée nationale yenn nag la jeunesse boo leen dof dofloo yéen les élèves yéen ñi war xëy jàngi suba toog seeni classe ne da ngeen ni composition su Macky Sall waat réew mi ren seen jàng yàqu doo leen def bac ndax le pays sera complètement chaos et déstabilisé Si vous avez que ça on est tous fichus du la élection 2027 la koy organiser que ci ay affaire que ak dit ay code 2027 pour am apaisement total ci àddunaam sinon vous avez 2027 boobu suba lay leer si vous avez man Si suba continue continuer di wax continuer combat bi wala ma suba le suba suba 11h 13h bés bu député yi voté loi bi la 17h Macky Sall bu ko neexee day jël loi décrétée couvre-feu ndax boobu moom mooy nekkaat président Bobo Sénégal day amat président mais ni moom day superviseur. superviseur le mais il n'est plus président loolu la constitution wax mënatul si ñun dara campagne lañu nekk yéen opposant yëpp ku ci campagne gore woo unicité bi bloc qui ma doon woote nañ si ñi gauche ni don diar droite l'est l'ouest le nord et le sud jaratu ko ne ça ne vous regarde plus vous les opposants et les politiciens vous redevenez des citoyens simples lambda qui devait descendre sur le terrain pour défendre la république d'abord man loolu laa gën gëmatuma kii mooy jiite gëmatum ko ku wàcc ñëw ànd ak xale yi yaay jiite mais ku xaal bu xale yi golo di bay baa dund di dundee politique boobu jeex na fi c'est fini afaga yaakaar golo di bay baa di dundee dootul am Sénégal jeex na suba yéen opposition ma leen di ñaan booy wax nañu boo leen bañee joteeg booy yi sur le terrain jiitu leen fa xale yi comme ni seen morom yi defoon 2012 balaa ñu leen di jiiñ ay politiciens soirée de gala ay politiciens mat ci tuñ ay politiciens vidéo le motif moytu leen loolu balaa ñu leen di jiiñ ay politiciens. pénguin la pénguinisation de la république moytu leen loolu suba filet, 9 h du matin billahi le Sénégal est assis sur des braises yéen jeunesse bi yéen a ko mun jeexal ñi doon xeex ci bëccëg bi dugg nañ ñooy récupérer ñoy ñooy deuxième quart 6 h du matin mais benen quart bi départ na ni ku am loy def li moy sa farata li moy sa objectif amul loy def nga jóg doxantu nank dem assemblée nationale pour jege buñu paré assemblée dugg palé nank djël suñu république ndax ñun ñoko mom lolu kessé kese la ñeeni ñaan amatul armée buy tiré seen kaw amatul gendarmerie buy tiré seen kaw amatul police buy tiré seen kaw ñom ñëpp sont des républicains ak luñu soxor soxor gis ngeen Macky Sall ay gendarme mom yenen façon tenue lañuy sol sonatuñ suñuy tenue ñooñu tam xamé len ah

Saar dootul joxe courant doo leen naan ndox dara du am ba ñu xam après foofu yu wànnante di mujjee gëtëm génn leen dem dox dem place de l'indépendance dugg nank doxantu dem toog buntu assemblée nationale député yi ku ñëw gis na yaa ngeen fa du voté loi yi est-ce que vous nañu tok que ba Sénégal tay suñu république au lieu mu reposer ci peuple bi mais mu reposer ci ay député yo xamné c'est des ignares oh le Sénégal repose sur les mains de Kouramaki. tay faut que ma wax le Sénégal repose sur les mains de Farbangom tay ñun tay Sénégal ñun tay ay doomu ñun ay doomu suñu avenir loxo ñooñu là c'est primitif c'est des gens c'est des gens yo ne ma wax pas gis nga non j'ai honte ñun suñu avenir sénégalais vous les élèves tay avenir ci ñooñu nous reposer ci ñom Amadou ci di nationale di woddoo ay beeco di kattante hôtel des députés ñoom tey ñun suñu avenir tey fa la reposer Sénégal oh oh Sénégal dëkku sëñ Bamba dëkk bu am ay xalif généraux tey suñu avenir reposer si ñii ay Aliou Dembourou Sow ay député yoo xam dañ doon assemblée législature ba le passé dañ doon sàcc ak def lépp tey suñu avenir si ñoom la reposer wu. gars yi ñii waruñu leen sax may ñuy wax si suñu avenir suba gis nga. même député yi dugg assemblée warul mën a am suba warta mën nekk ñu war a rey seen ndey suba vite fait ba député bu dof dof la dugg assemblée ñu ray seen ndey parce que ñii suñu avenir gars yi xanaa nag kiriku nag suñu avenir nag du reposer si loxo Abdou Mbow suñu avenir du reposer si loxo Abdou Mbow yéen tam la jeunesse la jeunesse xanaa suñu avenir mënul reposer si loxo ñuy nag yentam ñun Doudou ñun suñu génération les philosophes ñun suñu avenir dañoo ni du reposer ci Karim du reposer ci Karim Wade yentay ans après Karim Wade avenir ci loxo ay eh! suba assemblée Bala 9h xoola na presse bépp xam ne fi député mënu fi dugg ndax député amul fo jaar pour accéder Dakar Boy, on progresse ma ngi progresser assemblée nationale par force li ñu jëm première vague bi ñu ngi dem deuxième vague on vous attend basumo basumo mbare Khalif généraux yëpp wax na ak Macky ba pare na ay émissaire wax nañu waaw foog ñu wax wax nañu daal wax nañu ak moom foog ñu wax mais ñun loolu ça ne nous intéresse pas ay kii mooy gagné cent onze cent douze cent treize cent vingt huit ça ne nous intéresse plus xam nga lu ñu intéressé suñu Sénégal wàccee Macky Sall na Macky dem ba pare xam nga moom ay gars yi lan la na Macky dem ba pare na Macky dem ba pare rek le reste on va mais na Macky dem ba pare ak ku mën a jël na Macky dem ba pare ñun problème bépp na Macky dem yàkka Macky na dem na dem a dem a dem na Macky dem loolu la ñuy wax ba pare le reste yàlla baax na na Macky dem basuma basuma mbare su ko non ko abidje bu ñu bëggee sauver seen waaj léegi ngeen jot nouvelle yi ci guddi gi mais na Macky dem on s'en fout de ce qui va mais na Macky dem